ñun ñi ngay gis nii nuru nañuy xale waaye duñuy xale te it tolluñu fuñ ñi tolluñu fu ñi gere wala ñuy wax loo xam ni gëmuñu ko lu ñu wax lu nekk rek dañ koo gëm ndax fii ñëpp ñi fi taxaw ñëpp ay kilifa lañ ak i seex ak i nangam dañoo boot maa ngi dégg nag boobaak léegi ñi nga xamante ni ñooy suñ nawle yi nekk ci dëkk bi ñuy xasteeg di def nangam loolu ñun agguñ si loolu bataille la boo xam ne ñoom ci bataille psychologique lañ toll ñun nag tollaguñ ci bataille psychologique ñu ngi ci beneen bataille boo xam ne bu demee ba toll ak ñoom ci loolu dinañ ci jëflante ak ñoom di sant tamit lu mel ni waa Pastef yi rek ndax ñu ngi dégg ay kii bu Bousso man damay fàtte turam sax ndax ñoom man daanaka intéressé wuñ ma ñoom ñëpp ay ay Modou Bousso Dieng ak ñoom ñëpp nga xam ne nii bés moo leen dugal ci politique waaye waaye nekkul dañ cee dugg ngir seenu askan ñu ci bëree bëri bi bi nga xamante ne nii euh, maanaam ci événement marché yi jàll ci lañ sukkandikoo bëgg fee créer bés lu nekk ñu koy wax naan ay Serigne Mountakha la Macky Sall naan ay troisième mandat du ko bëgg Macky Sall bu bëggee troisième mandat sax ñu ñoo ko ci jàppale élection yi kañ la 31 juillet loolu yàggatut xam nga wàcc ma maa daan wóorut dangay bàyyi ba daan bu ba ngay bàyyi ba féete kaw doog ni maa daan xoolal ay électricité bi lu ci nekk ay salaire ak ay nangam lu ci nekk moom mi ngi ciy góorgóorlu ah ñu ni nag léegi Macky daal ñun dañ koy boycotté parce que ay wax yoo xam te ne nii tekkiwul dara loolu tamit dafa ñaaw ñun waa Touba nañ gën a xoolaat suñu taxawin gën a xoolaat suñu doxalin te xam ni sëñ bi am na fu mu teg président Macky Sall ñi ngi sant tamit ñi fi sëñ bi teg di jiital ci nuyoo bi nag maanaam ci sant gi ku mel ni Serigne Xaasim Mbacke ndax moom yóotuwul benn poste ci président Macky Sall lu mu ko gën a mën a jàppale doyut moom nelawatut yendooratut lépp lu mu xam ne nii moo mën a may ndam biir Touba mi ngi koy def ak ñi nga xam te ni ñoom lañ fi investir ku mel ni ay Cheikh du Bali ku mel ne ay Galas Kaltum ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ waaye daal li ma bëgg a wax mooy Xaasim Mbacke moom na ko mag yi gën a jàppale du lenn nag moo tax ñu ko wax ñoo bokk daaru minam te gis nañu ab taxawaayam kuréel gii daal ay ndaw ay ndaw lañ ñi ci ëpp ñii seen yaay sëñ bee ko jur ñii ay ñu jege sëñ bi lañ ñii ay seex lañ kuréel gi nag buñ ko tënkee maanaam jeunesse rek kooku moom wutuñu maanaam séparation ndax képp kuy jeunesse ndax Macky jeunesse bee ko war a fal. kon jàpp naa ni moo waral ñu tënkee ko ci mouvement des jeunes conscience de Touba. loolu rek baywul kenn campagne yi moom nen dong lañ ci fas yéene taxawoo mooy wàcc ci terrain bi bu jëree ñu takki daal lañu def ko bu jëree. ñu soli jiit ñu def ko lum jar lu nekk maanaam lum laaj lum laaj loolu la ñuy def parce que per président Macky Sall ñun moo ñu jaral loolu du leneen. ñu ngi wax ñu ngi woo jeunesse bépp ñu conscient gis nañ fi yeneen parti ñu mel damay tudd ku mel ni waa Pastef Ousmane Sonko ñu influencé ay jeunes ay ay ay ay ay ay ay lu mel ne ay ñoom assan Diouf ay ñeneen ñeneen ñu dégg jàpp kilifa yi ñun suñu sëriñ si lu ne ñu yàq leen ko ñun waa Touba kenn ñenn ci ay jeunes yi bëgg bëgg ànd ak ñoom ci loolu ñun loolu dafay jeex. ñun waa Touba suñu kilifa dong lañ am ku ñu jàppal suñu kilifa ñu jàpp ku bàyyi suñu kilifa ñu bàyyi la ku ko ñàkkal war ma ñu ñàkkal la war te mooy li ma tàmbalee si wax ji ñun Sëñ Muntaxa dong lañ am ku ko sagal sagal ñu kum sagal ñu sagal la on est plus de 105 membres ci ci ma bokkut ak yi nga xamante ne ay yeneen i daayira ak yeneen i ñoo xam ne ñu ngi suñu ginnaaw te lépp luñ décidé ànd nañ ceeg ñun mouvement des jeunes conscients de Touba jeune conscient nag doomi sëriñ wala sëtu sëriñ bu conscient yooyu loolu daa yàlla fii am na ñoo xam ne ay sëtu sëriñ Touba lañ am na ñoo xam ne ay sëtu Cheikh lañ am na ñoo xam ne ay sëtu Cheikh lañ fii ci fii ci mouvement bi bëri na ñoo xam ne ñun ci suñ mouvement bi ñoo xam ne sëñ bi mooy seen maam moo jur seen waajur